ñiy def aar aar aar yi ñuy wax alfan euh, diggante Jacques Maritain ak góor ga na mu tuddati euh, góor gële te mënoon def tablo yeeg Jean Cocteau Jean Cocteau Jean Cocteau maa ko xam wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan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 waaye ku sa gëm yàlla dox sa digganteeg yàlla ñàkk nga te ko yëg kat gëm yàlla dox sa digganteeg yàlla ñàkk nga te doo ndax itam gëm gi dafa yoññee ko nekk yàlla taxaw ci sa kanam yàlla moom di la xaar du la gis ndax yaa jëngam nga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 leneen intéressé wu la donc demala bi loolu yàlla moom ñàkk na la waaw